këti na réew mi dee ngi mel ni sabaru ñooñu tribune yéene ne ma jaxasoo lëj ne wëñ waaye yéene kaay ibdee bi naan man tempo tempo rek demal ma ba Touba ak catastrophe bu métti boo xam ne am na ca pof di bassin nag moo daal di fees ba daal di yënq bëx-bëxi nag daal di tàmbalee yàq ya xeet yéen ciy gox ci diwaanu Touba ay tool yoo xam ndox ma daal dina koy moom xeet loo xam ne ji nañ ko fa ba tàmbale koo bay moom tali ba nga xam ne moo dox diggante tayif ca Touba jaar julul dafa daal di xar ñaar ndax ndox maa ko yàq yéeni kaay bi naan man dara liggéeyu Mamour Diallo la waaye tam Serigne Mbaye Thiam ñaar ñi nga xam ne nag ñoo yor ndox ci réewum Sénégal Mamour moo yor ONAS Serigne Mbaye Thiam yor ministère bi ñu dénk wàllum ndox mi tribune yéeni kaay dama bul demagum ña nga xam ne nag ñoo am woppub jalis ci réewum Sénégal ña ngay ñaxtu nag ci ruq si nga xam ne fa lañ leen di dugal ñuy def hémodialyse mar ne la fan leen addi fàq dem jàppale ji Bougane Gueye Dany critique yéen kaay naan kon gaa yaa ngay politique moom ma ngay wëri parrainage diwaanu Thiès daanaka daal dina koy ratissé ak lu toll ci juróom ñetti junni ak ñetti téeméer ci parrain yoo xam ne daal dinañ koy séddal waa gëm sa bopp l'évidence yéeni kaay naan maan waa s 2 te Souleymane Ndiaye daal di koy jiite njiital SAPCO daal dinay jël record ya lu toll ci juróom benn fukk ak juróom ñetti junni ci parrain daal dina koy dajale ci ñetti ayu bés daal di koy jébbal Abdoulaye Diagne mi nga xam ne président Macky Sall moom la tabb S2D daal di jébbal président Macky Sall lu toll ci téeméeri junni ci parrain moo tax ñuy xamal Sall naan kon parrain gunu jeexaluñu le point yéeni kaay naan kon Moustapha Gueye njiital CROUS bu Bambey daal dinay dajale ay ci fanweeri junni ci parrain jébbal na ko ministre de la femme Fatou Diané turbine yéen kaay naan maan moom Fatou Diané ci boppam xamal na Moustapha Guèye ne ko département bu Diourbel bu ñu la ko bàyyee woon daanaka nga matale parrainage yi foofee ndax fukki junni ak juróom benn jébbale nga ko laata ngay jébbale fukki junni ak juróom muy lu fanweeri junni ci parrain te laataa collecte bi di jeex daanaka Moustapha mën na yegg ci téeméeri junni le peuple quotidien naan maan waa Fulaadu ya nekk ca Dalifor te may mën a bal di jiite leen nekk responsable te jàmm gën si Kàb ak Pikine daal nañuy mobiliser wu ngir candidat bii di Amadou Ba ca ndaje bu rëy boo xam ne amaloon nañ ko waa ya nekk ca Dalifort daal di xamal Maymuna ne ko daañu occuper terrain bi daañu dajale ay parrainage waaye itam daañu sànnil seen i xob Amadou Ba yemuñ ca daañu dem seeti seen mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci dëkk dëkkaani ci réewum Sénégal gannaaw bi nga xam ne daañu dox tànk ngir waa bennoo doon benn le témoin yéen kaay mel ni ku naan kon lu jafe waay ndax yenn kañe yi moom daal dina ñuy tëbee ci bato ba laataa muy suux réew mi ko dijee naan kon waxtu woowu nguuru Sénégal daal dinay dàq audience bi nga xam ne amoon na ko ci àtte yi a àttee seen digg Pastef fii ci loko Sen TV yi procureur moo daldi di sàkku ñu jàpp Amadou Ba mi yor yor naan kon cee Amadou Ba waaye tam Fatima Seynabou Kane ñii de daanaka ñooy béyu sarax yi ndax nag Juan Branco mi nga xam ne mooy ndayu mbilli ji daal di jël bulletin yi daal di publier fëgg dëna moom Juan ne maa publier moom kenn woowu ko kenn laaju ko jéemuñu xam ci moom dara ñaar ñi nga xam ne daanaka bëgg nañ leen saraxe ñu ne ñëpp daal di jàpp ñu ne déetawaay ay retour de parquet nag di ci am booba la solo yéene kaay mi ngi may xamal ne Sall ngaar yi ma ngay gate ñi nga xam ne mooy suñu équipe nationale sourd muet bi jébbal na leen ku ci nekk juróom-ñaari million tribune sport naan man lu mu metti metti jàpp leen ni Lionel Messi moo jël ballon door ba